mooy euh, li li ñu ci war a def mooy président justice def ci li mu war a def. mais du wax moo ci war a am. ndax yaakaar nga ni loolu mën nañ ko élargir ba ci moom ak keneen ak ñëpp. ci loolu oh, xam nga man mi la ne nañ atteewaat Karim Wade na xam nga li ma li ma bëgg xam nga lire nga rapport yow. 2016. Mhm. ban rapport la ñu génne 2016 2015 2016 2017 ñetti rapport yooyu fekk na fi si ñetti at la yow jaaxle wala. ak ah, kon lu ko ci boole moom mais xam nga dañu nekk ci politique ñoom te mënuñu fexe mënuñu fexe ba scandale yi rëcc leen ñiy toppatoo nag pour ñu rëcc bu ñu rëcc problème problème bi mooy est-ce que la cour des comptes est-ce que le procureur est-ce que le président de la république est-ce que le président Macky Sall est disposé est disposé à régler ce problème conformément à la loi et aux instructions des de contrôle bi waxoon ne tel nit bu mu liggéeyati ci administration diw bu mu liggéeyati ci administration bu mu jegeeti administration nga jël ko def ko ministre Pape. kan la mooy OFNAC ak Cheikh Oumar mais Pape kan la. mu indi livre bi ci Pape Alé bind aussi. waaw ne kan la Pape kan la. bu mu jegeeti bu mu kii bu mu ñu jege. recommandation la rek. à ah, ah, recommandation. mais recommandation la rek. waa mais Pape vraiment Pape recommandation bu toll noonu mu jëm ci président ci ku mu yónni ne ko seetal ma fay ko ne ko seetal ma mu seetal ko ah Pape man jaaxle naa de Pape waaru nga de ah. jërëjëf euh, président Doudou Wade ma gërëm la sant la bu baax euh, di la bàyyi bu fekkente ni am nga message boo xam ne mën nga koo mën koo def. waaw mais di wax ne rek Sénégalais yi nañ ma baal àq ci waxin bi je pense que euh, li ma fi wax rek lu ma ci wax wax wax te tudd nit wala tur am naa ay preuves yi ñaari tur laa fi tudd Amadou kan ak Doudou Ndir ci nag ak ci machin document yaa ngi fi am naa ko. Mhm. li ci des mooy réew mi toll na foo xam ne fii à la kuliyaalin il faut ñu waxtaane ko. Mhm. pour ñu defar ko pour ñu defar ko il faut ñu nangu laal dëgg bu ñu laalee dëgg ba xam ne lii mooy dëgg te lii du dëgg bu boobaa mën nañu yëwalantele pour seet nañu koy regle te bu boobaa dañuy jël élan bu bees dañuy am taxawaay bu bees dafa am situation xam ne yi bu ñu defee ne guerre rek la li xew Rwanda ba ñu mën a am li ñu am du démocratie de situation bu ñu dund entre la guerre entre les Tutsis et les Tutsis et les femmes jigéen ñooñu ñoo jëkk a mobiliser. Mhm. parce que ñoo sonn ci guerre bi. ñoo suul seen doom suul seen yaay suul seen papa suul seen jëkkër ba pare boot ay xale di wuti lu ñu lekk moo tax seen taxawaay mel ni mu mel. Mhm. moo tax lépp loo xam ne day yàq réew dañ ci taxaw pour pourtant le pays n'est pas totalement démocratique. Mhm. voilà mais ngoonte boon dañ ko dañu xam lan mooy seen priorité mais il faut que loolu nag mu ngi ci loxo président de la république. président de la république am sañ-sañ teg moo am droit woote. mu am droit waxtaan mais dafa am obligation wu respecter nit ñi. ci seen ni ci seen ni ñu nekkee mais aussi ca la muy arrêté ak ñoom. loolu dafa nekk loo xam ne lii lu lu war a nekk la maa ngi baalu yàq ñëpp di wax ne réew mi kenn du ko defar ñu ñoo koy defar te am nañu ay nit am nañu ay capacité am na ay jeunes yu nekk ci réew mi ñoo xam ne dañu mat. am na ay xale yu jàng. ci réew mi ci gouvernement bi ci assemblée bi. am na ay nit yu taxaw. ay jeunes j'en ai yu taxaw yu bëgg liggéey yu yu aw ñoo xam ne yenn saa yi dañuy am métit parce que yoon bi baaxul yoon bi baaxul te kenn du leen déglu parce que je pense que sur cette question-là mettons sur ce qui s'est passé avec les Sénégalais le président Macky Sall a mal conseillé moi je sais que dañ ko conseillé loolu mais mënu toog rek mënuma ci dara jéem na lu nekk am na ay jafe-jafe yu mu am daf ko jéem mhm. am na ay taxawaay yu mu am am ci liggéeyam daf ko jéem am na taxawaay bu mu am ci famille daf ko addunaam daf ci jëm ba àgg fi mu àgg moonte woon jéem mënu ko abandonné mais ña ko conseil ñoo ko conseil conseil bu baax donc il faut mu yëkkati la tête pour xool si mu war a xool mm-hmm. te situation bi yëpp parce que moom moo ko éclaircir moo ragal mm-hmm. il faut mu ne A la wala B mais mënul nekk A B jërëjëf situation boobu mu nekk moo ko jëf équilibriste la te day dox ci weñ day daanu jërëjëf il va tomber dans le ravin merci beaucoup jërëjëf mu nekkoon président Doudou Wade di sam papa nag ma am mbégte wax dëgg yàlla recevoir la encore une fois ci plateau Faram Facce euh, yaakaar naa ni yéeg yëg bi may am moom la ñuy seetaan di yëg itam mu nekk koo xam ni dafay tontu ci ci ci ci à cœur ouvert euh, di wax ak yow loo xam ni tam daanaka loo mën a dégg la nga ànd ci ak nga bañ ci ànd loolu mooy li nga xam ni mën nañ la ko seedeel euh, ci sa ay génn ñu ngi koy apprécier bu baax di la gërëm ci wuy si bi nga xam ne wuy woon nga ñu ko ci télévision Futur Média man tamit maa ngi lay gërëm j'avoue que sa émission dama koy waaj Mm-hmm. yow sax xam nga ne danga koy wàcc. Mm-hmm. danga koy wàcc parce que fi may aw laa dul xam. Mm-hmm. te yenn saa yi da ngay bette waaw euh, xam naa daal kuy ñëw di la seet si daal war na am xelu booy naar faal. mooy booy bëri waa ji xool ko sa kanam mais xool ko sa gannaaw dafay jékki-jékki féete la gannaaw <laughs> loolu moo tax maa ngi lay gërëm di sant. merci beaucoup jërëjëf Wade euh, kon mbokk mu nekkoon seen émission faram fàcce ak télévision Futur Média euh, ñu leen di jox rendez